asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi di seetaan seen chaîne leader muy jaasi gi si seen émission sport laay dund sport laay dund nag dafa nekk émission bi nga xamante ne nii fii si jaasi gi lay amee damay seeti ñëpp tamit di def ay plateau yu am solo si li nga xamante ni moom mooy maanaam sport Sénégal tey nag ma dalal ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Tidiane Gomis xam ngeen ko kii moom ku ko gis yaakaar naa ne kenn du ko présenté Sénégal kenn du ko présenté àdduna Macky Sall ci boppam foofu la njëkk a yàpp Sénégal L'autre qui mu a sport sport Sénégal secteur bu le mu secteur bu mu culture 3 millions qui, euh, euh, euh, transport 7 millions tourisme 5 millions. ah du le ñamu du parce que sport bii nga ko sport depuis que mu suis nguur nekk fii jàmm sport

tey jii mu ngi naan que sport faalewul sport mais sport dafa am emploi ñi ci yëngatu ñëpp ci la ñuy dundalee seen jàmm kon nag Macky Sall yow doo gërëm ñamu daaw. ñiy dund sport yi nekk Sénégal yëpp à part yow yow rek laay gis ngay kaas ak yeneen gars yi nga xamante ni bon il passe inaperçu. sport bi dafa bëri naa fekk sport bi naa fekk rek la bëri. waaye déedéet sport bee ma tax a jóg. est-ce que vous vrai dirigeant sportif. non, non non doo dégg nit da ngay am waaw ana dirigeant sportif yi demone jappalé Macky Sall ci élection yi passé dem ci stade ba dikoy jappal di anuñu ñoñu da nga ak ñoñu nga ci pour ñoñu dem jappal euh, wax Macky Sall Hé, li ngay doxalé ci sport baaxul du wax sport bi mo ay dafa am dirigeant dirigeant yi yoo xam ne ngi daf ci bare daf ci bare lool ay naafeq lañu mu am ci tamit ay ñeneen ñu ci bare ñu ci ñu ci yëngatu acteurs yi nekk ci sport bi yëpp daf ci am ñoo xam ne ay naafeq lañu. maanaam dañuy dundee sport mais dundaluñu ko. dundaluñu ko li ñuy def moom mooy xam ne lan la ñoom dañuy ñëw ci ministre Matar Ba dañuy ñëw ci moom ne ko eh sport bi dox na. te fekk billahi wallahi taala bu ñu génnee woo woo Cheikh Diagne Gomis ne ko ah waaw kii daal def fi dara ñu àtte bës nag dinaa toog nag ñoom ñëpp laay weer ñi nga xam ne ñooy dem ci ministre bi di koy naan wéy wéy wéy yaa ay ba pare ñëw ci man di may naan joo mais ministre bi xamul dara naa na ñoom ñëpp dinaan weer wal naan Macky Sall kii ñoom ñëpp ci suuf la ñuy wax waaye duñ ko wax ci kaw ragal lañu père bu ñu jugee foofu noonu dañuy dugg fi nga xamante ni moom mooy fédération sénégalaise de football ñoom nag période pandémie bii nii gis nañ ni club yëpp sonn nañ maanaam amuñu maanaam li ñu dimbalee seen i euh, joueur amuñu li ñu dimbale ñi nga xam ne moom mooy maanaam seen i dirigeant tey nag ñoom nag ñu ne dañoo fas yéene jàppale ñi nga xamante ni moom mooy maanaam club yi waaye nag jàppale bi nag ñoom nag yaakaaruñ ko fenn fu maanaam si ay ndimbal yu war a ñëw comme ay lu ci mel ni ndimbalu CAF ndimbalu ministère ak ndimbalu FIFA tey yow loolu ñu dirigeant yooyu doon def loolu yow lan nga leen jàppee ak lan nga leen di wax. ñooñu ñoo gën a bon ñu bon man maa ko wax dama ne fédération sénégalaise bu football ñi nekk ci fédération bi amuñu xel ñoom tamit. Si vous dañu bëgg yaaka ci CAF, bi di ak bi FIFA ak bi di état pour mëna dimbalé euh, club yi ba di leen di jox di leen di jox ab ab ab ab ab ab as ay ay 3 millions. xam nga lolu té yow nga dem dem euh, football bi jël football bi ba coupe du monde ñu jox ñu ay milliards dem ci bas euh, dem ca CAN ba finaliste nga am milliards depuis une finée que nekkee FIFA mu ngi à ay chaque année CAF di à ay y yéen ni wa fédération sénégalaise de football yéen Abdoulaye Augustin yow laay njëkk a waxal yow mi yërëmoo club yi yow président de club nga yàgg nga ci kii bi mais billahi yërëmoo club Augustin Senghor man ci côté boobu la ma gën a parce que l'argent revient au football ci naka club yi dañoo sonn club yi mënatuñu dem état bi dimbalewu football euh, fédération la fédération mauritanienne de football a qualifié la coupe du monde de a club am 15 millions 15 millions Il euh, Côte d'Ivoire ah, Côte ñun nous parce que nous avons 150 millions le club bu 150 millions, nous sommes non, nous mais nous fille. la fédération am au moins ne serait ce bo ça, si xolal bo un club de 20 millions du ta 20 millions 28 clubs professionnels. 14 euh, euh, yu qui yu ki, yu Ligue 1. jox Ben am Covid bi 20 millions nga ne club 2 euh, 10 millions calcul 28 multiplié. da ngay 28 30 entre tout. 14 multiplier par 30 30 millions du dara 500 millions.

Ça ñuy nous di wax rek man du moins dañuy kaas lu ci FIFA dina def euh, Covid 19 dimbale ko fédération yi affilié aussi moom affiliée. ñu génn tontu ko génn ay preuve ne Souleymane Ndiaye en naa encaissé xaalis. kenen tamit muy Madi Touré président GF mom tamit amone problème ak ñom problème mu prix mu tamit ñu tamit tontu preuve est-ce que loolu la période pandémie bi ñu toll ay tontonte dama Touré dafa am ba génn ne ay ay chiffres Mady Touré génn ne ay chiffres wan leen ne que yéen ñii deful leen dara waaw général waay non doo dégg lu ma la ñoom dañ ko amel waaw dañ ko amel te ñoom li ñu doon def yëpp loolu état du Sénégal moo leen moo ko doon def fédération li mu ciy def tuuti rek la. lu il koy appelé mais est-ce que a la période bi ñu yow ma que eh eh eh eh, que ku la bëgg a dara nga tontu ko Ma di Touré ak euh, moi am dëgg. waa euh, Eh. waaw na jaar ci ah, la wax fii na xaalis di ñëw ci football bi FIFA CAF di ñëw ngir nañ ko def jox ko club yi mu di ay club ba pare nag li gëna a bon xam nga moy lan fédération sénégalaise de football comité exécutif chaque année ku nek am nga 1 million loolu jaaduna footballeur yi nga xam amuñu sax. waaw footballeur yi amuñu dara <laughs> comité exécutif ku nek ñom ñoko voté nañ ko wéddi ku nek amna 1 million ñom ñoy dund ñom ñoy am lu bare waye club yi duñu am joueur bi di def spectacle amuñu dara ñom ku nek 1 million xam nga loolu ñaawna waaw parce que dañu né ah, euh, ci taxi euh foo ku fa nek bénévolat nga amo droit laaj dara ba ñuy dem Coupe d'Afrique te keer ku nekk di laajte 3 millions ñii xaalis rek lañ gëm. oui yaakaar naa ni waxtaan bi am na solo trop te neex na waaye tamit dama koy dakkal fii nii mais balaa may dem nag damay laaj ki nga xamante ni moom mooy sunu père mu def euh, dernière kàddoom ci li nga xamante ni moom mooy émission bi nga xamante ne sport laay dund waaye nag père dafa am lu lay laaj loo xamante ni moom mooy dernière question mooy que ni tey jii ni fédération ñu jëm si dernière mandat yow ban kàddu nga leen di dénk par rapport ak seen liggéey ak foo ko teg. Euh, mane xam nga lan la euh, damay wax képp koo xam ne def nga trois mandats doy na nga ñibbi nga bàyyi ñi may waxal nag Augustin Senghor yow laay waxal alin Sarr yow mi ci làmb ji yow laay waxal cher euh, ñang bu course hippique yow laay waxal ak ñeneen ak ñeneen ku ci def ak Amadou Kane nawetaan ñoom ñëpp dama ne li ma leen wax xam nga mooy lan waaw loolu laa leen wax dama ne doy na nguur kenn du ko ñedd ngeen bàyyi ñeneen ñu ñëw liggéey liggéey bi àggali ku ci nekk nag am na lu baax loo def am na lu bon loo def waaye da béy nga sa waar mën nga wax ngaa mën a dem nit day doylu jërëjëf per Père Cheikh Tidiane Gomis yaakaar naa ne waxtaan bi neex na te am solo suñu mbokk internet ñun nii lañ koy defee sport laay dund damay dugg fu nekk def ay plateau yu am solo si ñi nga xamante ni ñoom lañ jar maanaam ñoom ñoo jara a tàllal micro ñu indi seen xalaat indi li nga xamante ni moom mooy maanaam seen apport si li nga xamante moom mooy sport Sénégal pour mu jëm kanam mën na dem si kanam ci kaw lan buñ boolee suñuy doole jàppoo xeex benn affaire pour mu denc maanaam xeex benn affaire mooy la mooy injustice ñu dindi ko fi pour mun teg li nga xamante ni moom mooy yoon ngir suñu football dem si kanam Père lan ngay Euh, di lay gërëm di sant yow ak sa caméraman bi di leen di wax ne vraiment liggéey bi euh, baax na euh, ñu am jom ngeen parce que gis naa ne yéen a ngi maanaam di génne ay actualité di dem ci nit yoo xam ne waaw man nag li ma bëgg nag xam nga mooy lan mooy que benn affaire rek laa bëgg mooy maanaam ngeen fexe ba am audience ak Macky Sall interview ngeen ne ko. yow Macky Sall yow yaa ne bi ngay def élection entre deux tours yow ak qui euh, en 2012 yow ak euh, euh Ablaye Wade ya digone sport bi 1% ya ngi ni defo ko nag lan mo tax yow wax waxe bi nga wax bi nga def ci sport bi foo ko teg. jaa ngeen jëf ñu ngi len jox di daje ba benen yoon.